jërëjëf merci beaucoup alors euh, donc nag lii mooy wane rek ni euh, maanaam euh, ndaw dafa am ci nuñ koy tàggatee bu ko defee loolu lay màggalee loolu mooy sabab mu dem ba liñ naan rus ak jomb nekk ci moom loolu mooy sabab mu dem ba ñu nampatal ko ci diine l'islam loolu mooy sabab ñu nampatal ko ci mu bëgg Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf Cheikh Oumar Mbaye teew na dinañ ko dalal moom tamit ndaxte mbégteeg bànneex la ñoom saa su ne dala ko suñu plateau waxtaan ak moom Cheikh Sadbou encore une fois lii ngeen def ci gone yi waxuma man mi toog waaye ñi seetaan yaakaar naa seen xol xol na parce que tey ndaw am na noo koy tàggatee rek dina dem ba moom ci boppam dafa am luy nekk ci xolam loo xam dootu ko jox ayca euh, donc nag Cheikh Oumar mbay bismillah ah, ñu dalal Cheikh Oumar Mbaye ñu yeggaleel Cheikh ma bismillah aha ñu santat yàlla ah, xam ne xale yi wax nañ ko fii muy tooy xool nit ñi mhm. yàlla jëmm ji moo tax mhm. kenn du Cheikh Ama Mbaye mhm. ndaxte moom mooy bàyyi taawam bàyyi yitteem bàyyi lépp mhm. ngir bégal xale yi jàngal leen mhm. Seydina ma jikkoy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam tàggate leen ci moom kon li nga xam ne ne xale yaa ngi koy wax fii sànq ba léegi yàlla ak jëmm ji toog moo tax yàlla ji toog la waaw kon moom amoon nañ ko cant ak ngërëm di ko ñaanal Ahmad dalal ak jàmm ci barkent bi sallallahu alayhi wasallam macha allah bismillah ayca mbégteeg bànnee la ñu am suma yaay maa ngi lay ziar sama yaay booy ngom masiga ak maaw mu ngi mu ngi auditeurs di leen ziar alors euh, Cheikh Ama ñu ngi lay ziar dara bi moom xam naa ni man moom am naa lu ma sol ci gàmmu gi moom <laughs> man moom xam naa ni moom lu ma sol ci gàmmu gi moom am naa ko ba pare moom Cheikh Ama am nañ mbégte dalalaat la fi sax laay wax ndax njëkkoon nañ leen fi dalal dalalaat leen fi tey te xam naa duñ jóg di leen dalal ndaxte li ngeen di def ci xolum nit ñi la dem ndax yonent bi li may di wax ñëpp a ko bëgg waaw ñëpp a ko bëgg te kenn bañul Seydina Muhammad da nga ko dul xam waaye nit mënul bañ yonent bi xol mënul bañ Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tey yàlla dogal yàlla yàlla yàlla ci loolu la la natt yow maanaam bëgg Seydina Muhammad ci la la natt di ko tagg ci la natt mu nekk natt nag bu li ñu naan natt bu positif ba pare yàlla dogal tamit nga koy jël loolu mu ngi mel ni euh, loo xam ne da nga koy transmettre di ko jëlee sa bopp di ko am ci ñoo koy dugal mu mel ni toqantal booy jox gone yi ñu dem ba màggaaleeg moom kon mu mel mu nekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lim li mu yoroon mu tas ci saxaaba yi ñooy Seydina Aboubacar Seydina Omar ak ñoom ñëpp mu ngi wàcc ba seeni sët wàcc ba ci yéen di wàccaat ci ndaw ñi te loolu day law ba keroog àdduna di tukki yàlla na yéex euh, Cheikh Amou ñu bàyyi la nga nuyoog mbokki xarit téléspectateur yi. asalaamaaleykum mhm. sant yàlla julli Seydina Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam. di jox suñuy kàddu si bismillahi rahmaani rahim. Mhm. waaye du julli si yonent bi alayhi salaatu wa sallam. ñu ngi nuyu. mbokk jullit ñëpp mhm. téléspectateurs yeeg mhm. waa yi nga xamante ne yéen ñu dalal di la nuyu yow Ameth maa ngi lay fay ak groupe bi nga àndal yëpp ndeysaan ak képp koo xamante ne yaa ngi fii si biir télé bi mhm. waaye di ñaanalit euh, Sidi Lamine Niass ndeysaan yàlla wàcce yéen mën di si kawam amiin yaa rabbi yokk leeram amiin yaa rabbi si barke Yonent bi alayhi salaatu wa salaam te loolu am nañ si yaakaar ñu ngi leen nuyu Euh, di leen xamal ne am nañu mbégte bu rëy mm-hmm. ndax bii mooy ñaareelu yoon mm-hmm. ngay dalal daayira bi mm-hmm. euh, daayira bi nag di daayira Faadiliya ki ko taxawal di sëtu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na si bindam fa inna naa ab naa u faatimal batul ñun daal boo ñu xamul ab naa u faatimal batul ñu ñooy doomu faatumata bintu rasul sallallahu alayhi wa sallam ñu dellu mm-hmm. donn loo xamante ne ku leen topp rek mel leen topp nga yonent bi mm-hmm. muy leeru nubbuwa mm-hmm. waaw mu wax ne nuuru nubbuwata alay naa laa yusul tawarasat loolu foofu laan waaye ki taxawal lii moo bokk si bi Seydou Abdoulaye al Kaamil wa Asan al Musana Zakk al Kaamil. Mm-hmm. Kamil lana bi jaayihi wal asad. moom Cheikh Ahmad Amin mooy sibti rasulillahi kull al asad. loolu nag mooy doomu yonent bi nga xamante ni. Mm-hmm. dafa bàyyi ko si Seydina Asan. nga dégg baat bi ma la njëkk indil fa inna naa ab naa u Faatimal Batul. Mm-hmm. ñoom daal ñooy sëtu Faatimal Batul. ak Seydina Asan Asan koy bàyyam. Hmm. Seydina Alioune. Faatumata kuy bàyyam. Seydina Muhammad yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñuy sëtu yonent bi. Hmm. kon ñoom lépp lu ñu taxawal am na benn suru boo xamante ne man damay mottali rek. Hmm. waaye am na benn suru boo xamante ne. loolu yàlla moo ko mooñaalee yonent bi. waaw te wax nga wax nga ko sànq. Euh, xol day force day bëgg yonent bi. dëgg la ñi nga ñi yàlla dogal seen xol bëggul yonent bi ñooñu. yàllaa leen ci boolewul rek. wallaahi wallaahi. ci boolewul waaye ki nga xamante Euh, moo tax ñu sàkk la mhm. si barkeem la la yàlla sàkki dëgg la waaw kooku boo boo boo ko xamoon dëgg mhm. wallaahi day dëkk sa dëgg la ku ko xamul nag. Mhm. yàlla moo la si boolewul. dëgg la waaw kon yàlla nañu yàlla defal jàmm. amiin yaa rabbi di la ñaanal li joo maa la ñaanal tamit amiin yaa rabbi ndax lii mhm. ngay defal xale yi. ndeysaan ndeysaan waaw di ziar Cheikh Cheikh Saad bu la ñu dellu ziar rek. Mhm. soxna yi àndal yëpp. ndeysaan waaw ñu ngi leen di nuyu. a jërëjëf Mbengue maa ngi lay nuyu Mbengue douanier ci aéroport bu bu Diass ñu ngi lay ziar bu baax a baax jërëjëf alors di la souhaiter encore une fois joyeux anniversaire par anticipation di la ñaanal moom itamit sunu frère la nit ku baax la bëgg yonent bi lool fa toog xol ba tooy na mu ngi kontaan message day ñëw euh, internet bi par exemple xam nga ñun dañuy def plateau direct lay doon ñuy seetaan ci Walf officiel partout à travers le monde foo nekk rek da koy seetaan donc nag ñu ngi ñu ngi on wax cofelam mu ngi wax mbégteem mu ngi wax ne nan nan waxtaan tut ci yonent bi am na ñu may jox ay message na ma waxal Cheikh Amma ñëpp ñu bari bari na mënuma sax lim waxal ñu Cheikh Amma mu waxtaan ci yonent bi Mamadou Dieng Padois Buldes voilà nee na ma Cheikh Amma Mbaye maa ngi koy ziar waxal ma ko mu waxtaanal ma ci sëy naa mu tuuti alors Moussa Leye moom tamit ñu ngi koy bégee mu ngi ziar nee na mbégte mbégte la am su lay seetaan ndax xam na la donc ñu baree bari dañ leen di topp ndax yun salaa salaam moo mel noonu maanaam liñ naan lum laal a gën lum laalu doomu faat doomu Abdallah ak Aminata eh, eh, juddoom dafa fay bépp judd moom seyd Seydina Mohamed at ma mu juddoo yaakaar naa képp ku ci nekkoon buur sax wàcc nga salal toog ci suuf mhm. moom sangu-sang yi yàlla defal ko lu mu defalul kenn mu nekkoon nit koo xam ne liñ naan dafa diisoon gann waaye fal boppam mhm. lool fonk doomu aadama fu mu fekk mbooloo toog fa mbooloo ma yem lay toog du jéggi di seeti mbooloo mi te pourtant yàlla defal ko defal na ko loo xam ne moom yàlla xam nga ku ñëw ba ne la yow yaa gën ñëpp muy benn waaye li leen gënee jikko ju rafet la mu ëlbatiku ne la sa àjjana leer na terewul keroog la gën a mun a jaamu yàlla suñu borom ki nga xamante ne keroog ba nga ba ngay génn àddina mar bi nga xam ne mooy jël yi dafa ñëw ba cëw di la tàggu uh-huh. ci moom la njëkkee ci moom lay yem uh-huh. ba bëggee ma bala fii ma bala fii uh-huh. soo bëggee yóbbu la duggal ah. Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kooku kenn du moom kenn du moom xam nga. Mm-hmm. Mm-hmm. li ma li ñu wax sànq rek. Mm-hmm. mooy ki nga xamante ni. bi ko yàlla sàkk. yàlla moom moom dong la woon ak keppaaram. si la jékki-jékki sàkk leeram. jël si leeram moom. muy muy leeru jamaal si la créé beneen leer muy kamal mu jël ñaari leer yooyu di ko liggéey. ba génn si leeru kamal. sabbi waswasilul maxaasin suuduhu jalaalu wal jamaalu wa sanul ulum wal kamaal mm-hmm. leer googu la jël mm-hmm. sàkk si yonent bi wa waaye si gisul leeram nag mu sàkk si li ñun ñun mbindee fi lépp lu am si àdduna mm-hmm. nga xam ne kooku kenn du moom gis nga àdduna gaa ñi bu ñu bu ñu xamoon wallahi ajum ñun ñëpp ay yaru ndax ba mu ba mu juddoo su mhm. dundam la la yar képp ku yàlla sàkk moom yonent bi ndax yar ak teggin mhm. ndax wax nga ko euh, léegi ne moo gën a diis mhm. moo gën a diis ku yàlla waaye moo gën a woyof ku yàlla bind yàlla sàkk ngay dox ci àdduna rek waroon ngaa war ngaa am yar ku amul yar ku nekk rek booba da ngaa xool si yonent bi sallallahu alayhi ku xool si moom am yar ndax yàllaa ko defal defal ko lu lu mu defalul kenn mhm. waaw ba pare xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li waral yemul ak kenn mhm. mooy mooy leeru yàlla mooy daw si moom mhm. gis nga keroog ba mu riñaane yàlla yàlla benn jëmm benn jëmmu ordinaire du jàkkaarloog yàlla antunu ko mais yonent bi li tax mu mu mën sallallahu alayhi wa sallam tax mu mën a dem ba jàkkaarloog yàlla ndax yàlla laal gi mu laal si leeram mm-hmm. sàkk si yonent bi moo tax mu mën a jàkkaarloo dëgg la mm-hmm. wax ak moom mm-hmm. Cheikhna sa Saad bu nettali na ko si yaqulu saadul abi najjuli fadil li nga ñooñu gi li ñuy li lépp la ñu am bëgg yonent bi ma surtout yonent bi la da waaye benn xasida ñaar boo boo boo jàng bu nekk da ngay dégg mu lay mu lay wax cofeelam si yonent bi ak li mu ko jaral lépp ni uhibbu rasulillahi sayidina hubban taxasara an humal walwalad nga ñëw si foo da mun naa la béxu bi xayri Moustapha mhm. nda bëgg ku ñu bëgg yonent bi ndax dañu xam mhm. daraja bi nga xamante ne moo nekk si Seydina Mouhamed ak ak Seydina Mouhamed ñun mhm. lan la représenté su ñun maanaam ñun lan leen war a jëriñoo si yonent bi du leen jukko la jikko mooy tax nit boo fi jógee kenn du la waaye jikko mooy tax boo fi jógee ñëpp fàtte la mm-hmm. li tax nag boo fi jógee kenn du la fàtte du leen lu dul jikko ju rafet mm-hmm. seen góor ñi baax ñu yàlla wàcce Sénégal ñëpp mm-hmm. li waral seen tur du fay ba mukk jikko ju rafet la ndax dañoo jëloon seen jikko def ko jikko yonent bi kon kooku kenn du moom kooku bu ñuy wax si moom géej la ngoo xamante ne Cheikh na wax na ko law asa kullu ahadin alpasana wa maxtaarahu abadan ak naasi na nee na jëlal lépp luy luy xalima mm-hmm. lépp luy garab mm-hmm. ak bant nga def leen xalima lépp luy géej mm-hmm. ak ndox mi si biir suuf nee na def ko muy sa daa nee na tàllal tàllal asamaanu suuf muy sa àll bi nee na ngay way di way yonente di dem ba géej fer garab dootul des asamaan suuf danañ fees doo am foo bind. Mm-hmm. te nee lu toll ni sa pepp we bi doo ko dab si mbaaxu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kooku bu ñuy wax ci moom. Mm-hmm. duñ fi jug. Mm-hmm. moom daal. sunu njëriñ ak moom l'essentiel bi mooy lan. ko ju rafet. te jikko jooju mu ñu jàngal. ñun ñëpp buñ ko jëloon. kon àdduna problème du fi am. te lu ñu ñaan yàlla mu defal ñu ko. macha ndekete kon doomu aadama ci jikko lañ koy nawee euh, mm-hmm. li may wax li la nit di gënee buy sangu du ko summi mm-hmm. jikko la nekk yàlla nekk lu rafet euh, doomu aadama da ngay tàggat sa bopp li may faral di wax adduna euh, chaque jour damay faral dégg ñu naan jeex na d'accord adduna jeex na waaye nu xam ne ñaar moom du pertement sama philosophie man si sama xalaat ban bokk mooy que ni pour man ñaar moo dul pertement ci àdduna def lu baax ak jaamu yàlla mm-hmm. pour man leneen def lu dul loolu perte nga fii perte fan jëm parce que leneen lépp li may faral di wax nit ki ku la mun ci jaay lu mu nit ki mun a jaay ci àddina jàppal yàlla may na ko Seydina Mohamed may nit ci àddina mm-hmm. eh, Mohamed dogguma la àdduna am na solo de mm-hmm. ndax lu baax la ngay ami ëllëg fii nga koy liggéey fii nga koy liggéey wallaahi wallaahi kon am na solo am solo ki mu ki mu amul solo rek mooy kisi dul def lu baax wallaahi te yàlla waaye ki fiy def lu baax àdduna am na solo sang bi mu ngi leen di ziar Serif Lamine Aydara mu ngi mu nee na moom maa ngi seetaan maa ngi déglu macha allah la ma ci tegal mm. Aydara ñu ngi lay ziar moom moom dama koy bàyyi yàlla waaye yàlla suñu borom xama xameek moom mu ngi ko jaarale ci jëmm ji di Maman Fall waaw foofu la foofu la foofu la yàlla jaarale sama xame ak moom yàgg na nag waaye li may faral di wax rek du lëpp nga mën a wax waaye moom xam na man xam naa maa it xam na waaye yal na yàlla fay la ay dara amiin yaa rabbi ndax moom li may faral di wax rek ñun duñ la mës a cof dañ lay téye ndax sëtu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dëgg la direct loolu mu ëmb wax nga ko leeral nga ko sànq kon nag ñu ngi lay ñaan se barke maam bësam bi ñu dëgmal it nga xam ne li may faral di wax bu doon alal la du ñu ko du ñu ko du ñu ki moo doon baax ñàkk ndeysaan mais ëmma ëmma yow tamit bàyyi ñu bàyyi la nga nga enchaîné ndax xam naa ni waxtu du nu du nu xaar te nag day baax ñu bàyyi leen tamit ngeen bëgg bi fàttali ni li may wax rek sang bi euh, bésam boobu noonu le 14 mars yàgg nañ ko euh, yàgg nañ fa dem euh, li may wax tant ba bañ koy tant yàgg na mais su ma jëmm ju xeebu ji ak ñi ma àndal ñu ma yàlla booleel xëy na du du du alal moo tax tey mu ñuy jagleel bës wala mu ñu ciy boole mbaaxam la rek ay dara moo tax mu koy cërale bañ ciy jóg di dem ànd ceeg yéen ngeen yàgg ci sonn nag wax dëgg yàlla ñu koy ñaanal bés yàlla ñu ci yegg ak jàmm te incha allah li ma koy wax ay dara nee naa ko at mu ñëw rek ñu mhm. ba ñu weesu ndax yéene gi di gërëm nag Cheikh Naata sunu sunu yaay nit ku baax di wajuru Babacar mi toog yàgg sonn ci bés bi wax dëgg yàlla ak njabootam gépp ñoom abit ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu mhm. di leen ziar wax dëgg yàlla ñu gis seen taxawaay ci bés bi ni ngeen ciy taxawoo ren eh, eh, daaw ak ren mouvement Vadel yaa ñëw am lu mu ci yokk moom yàgg na ci ñëw Fat Bintu yàgg na ci ñëw keneen keneen foo ko gis rek moom sang bi li muy woote mooy jàmm ak salaam li muy woote mooy njub ak dëgg ci loolu lañ xam Chérif ay Aidara waaye ëmma di ma duggal serif waaye ñëw taggal ma Seydina Mouhamed nag ndax loolu la nit ñi xaar ci yow ñi may envoyé message su ma su ma su ma magu soxna mu nga ba Belgique moom dafa bëgg yonent bi booy tagg Seydina Mouhamed fu mu toog ronga ñi day tuuru ndax bëgg yonent bi salaa salaam yaayu seex yi ñu bàyyi la nga ñëw ñu Seydina Mouhamed waaw euh, waaw euh, balaa may ñëw si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne kooku moom kun na ñëw si da si siy sawar mm-hmm. waaye e, dafa am jëmm joo fi tudd léegi muy Cheikh Mohamed Lamine ay dara doomu siru jee maxruuf mm-hmm. e, kooku noonu lay mën a mel mm-hmm. ndax yonent bi ay maamam njëgam sànq li ma doon wax ne nit ñun niti ordinaire yi mbaax a ñu war masamaag nag moom mi nga xamante ne dafa doon nuuru nubbu wati alay naa laa yusul tawaara sab lawul foofu la Cheikh na nee na nuuru nubbu wati boobu yàlla seen maam yonent bi rek la ko jagleen te moom ci boppam moo wax ne leer gi du fi jub ba ilaa bi diin fii ba àdduna tukki leer gi du fi jub jur muy doon muy jur muy doon ba yomal xiyaam moo indi way woowu ñuy wax naan yaa di géej mbambulan ciri bu ñay juree sooma baawaan la sa kon ay ñu ngi koy ziar bu baax di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér waaye nii lay mën a mel kuy maamam Seyduna Muhammad ma xalaqa laahu nuur Seyduna Muhammad wajadu alfin arbauna moom Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa مئة وعشرون ألف عام si leeram moom Seydina Muhammad sallallahu la yàlla amalee suma xalaqa Jibriila wa Mikaayila wa Israa'iila yàlla ak leen amalee siddi si leeru Seydina Muhammad sallallahu leeru wa Asraa'ila si desu leeru Seydina Muhammad yàlla amal na leeru wa Israafila si desu leeru Seydina Muhammad moom sama xalaqal arsi wal kursiyu wa laylu wal xalam loolu lépp yàlla nga ko amalee si desu leeru Seydina Muhammad yàlla amal sama xalaqa sama waati ardi si desu leeru siduna muhammad yàlla amal na wa leylu wal xalam si desu leeru siduna muhammad moom siduna muhammad wa huwa alladi xalaqa samaawaati tibaaxan wa jaal al xamara fihinna nuuran ana ñu sopp siduna muhammad na ñëpp na ni ñu màggal borom bareeru or munawar mhm. boo demee ba medinatul munawar bara jàkkaarloog raw doom ne kii la yàlla teral te kii moo gën ci jaam ni mooy siduna muhammad moom si leeram suma xalaqa samaawaati wal ardi wa huwa alladi xalaqa samaawaati tibaaxan wa jaala alxamara fihinna nuuran wa jaala alsamsa siraajan wa xawluhu moom Seydina Muhammad wa banaynaa fawqakum sabban sidaadan loolu lépp yàlla ko terale Seydina Muhammad si leeram la yàlla amale wa xalaqa samaawaati mina duuxan mm-hmm. si leeram la amale wa xalaqa samaawaati mina subbi mm-hmm. wa subbi minal mawji wal mawji minal maayi mm-hmm. wal maayi mina durri wa durri mina diyaafati wadi apati an faqat na ñëpp ne nii ñu màggal nuuru Seyduna Muhammad sallallahu Seyduna Muhammad yàlla an ko jëlee si leeram min nuurillaahi jalla jalaaluhu Seyduna Muhammad Seyduna Muhammad min muxtaari Seyduna Muhammad yàlla ko ne yow yaay xayru xalqulaay siduna muhammad mooy ki yàlla jiital ne ko yaay imaamu kullu nujaba siduna muhammad digg na siduna muhammad wooye nan ko wal nuxaba siduna muhammad wooye nan ko wal fudala siduna muhammad wooye nan ko yaa mustafa siduna muhammad wooye nan ko yaa marhaba siduna muhammad wooye nan ko yaa sayyid al kawnayni woowee nan ko yaa alamal huda siduna muhammad woowee nan ko yaa badri tiimi fil wujudi alal mada sayduna muhammad woowee nan ko yaa baxra ilmillahi yaa këldul ata loola wara sa damba bay nalaw kii mooy cheikh na cheikh saadul abi wuldu cheikh mohamed vaadal nee na boo xamul sama siduna muhammad nee na mooy xayru nabiyin man faaxat nubuwatuhu nubuwatu rusli min urbin wa min ajamin cheikh na ne wa abdalu rusli man faaxat risalatahu bisama wasaare min saa'iril umam. foofu laa koy yem tey dama ne waxoon ne tu ma ñëwee du ma wax. doo wax waaw ndax ku am kuddu doo lakk. <laughs> ayca waaw léegi dañuy bàyyi ñu yeggali ñoom tamit bu ko defee nu nu nu nu yeggali ayca Ndiass Gueye jërëjëf maa ngi lay nuyu moom mooy suma tëyër bi. Eh, yi may sol ni yëpp moom moo koy ñëw ñu ngi lay nuyu di nuyu waa Tivaouane Couture ñu ngi waa kër Serigne Mbaye Sy Mansour maa ngi lay ziar bëgg bu baax a baax a baax ñi nga xamante ne nii moo di eh, Serigne Mbaye Sy Mansour ñu ngi lay ziar di nuyu kulli tijaan bu ñuy seetaan jërëjëf madame Badiane waaw maa ngi lay nuyu yow tamit ah moom nee na mu ngi seetaan moom tam ci alors <laughs> message yi moom mënu ma lii fa tëgg yàlla parce que dafa bëri mm-hmm. dafa nit ñaa ngi xam nga man damay des fois dama naan yonent bi doo xam sax nit ñi cofeel gi ñu am ci moom ndax bëgg ko uh-huh. wallaahi da ngay gis booy booy li ñu naan booy tagg Seydina Muhammad yàlla dafa am lu muy def ci yow yàlla moo lay teralal boppam waaw yàlla moo lay teral boppam. Mhm. Eh, Ahmed Tabale foog ma ñëw ci moom parce que Tabale yi muy tëgg nii macha allah dafa am lu ko ci yàlla may moom tamit waaye ma bàyyi ñu ñëwaat ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam bégal ñu ba ci kanam ñu daal di eh, delluwaat eh, ci Ahmed Tabala di leen fàttali que ni mun ngeen jokkoo ak ñun bu leen neexee jaajëfal waa Régie tamit Jean Gabriel Préda ak Mamadou Fall merci beaucoup ci ci ci liggéey bu am solo bi di ziar Oustaz Assane sunu gi Cheikh Niass di ko ziar di nuyu waa administration nuyu waa service commercial ñuy seetaan euh, fële ca diwaanu South Africa moo di Afrique du Sud ñu ngi leen di béggee bu baax a baax doomu Sénégal yi fa nekk ak Gabon aussi bëri nañ fay soppe am ñu seetaan waa Gambie jërëjëf waa ñu ngi béggee waa Thiarène voilà euh, mu ngi tudd Alassane Top depuis Thiarène nuy soxna Mati Ndiaye di nuy aussi Serigne Alioune Cissé depuis Thiarène moom tamit soppey Seydina Mohamed la nu ngi koy nuyu euh, di ko ziar bu baax a baax di nuyu aussi waa waa waa Domdouuru Alpha wala ak waa Domdouuru Alpha foofu tam mu nga ca Matam di nuyu waa Podor waa Dagana Ourossogui Warafondé Xayra Lawo Xay Mbedat Kobilo ñu ngi nuyu Fuutanke yëpp di ziar waa Fuuta yëpp jërëjëf suñuy soppe lañ chaque jour dañuy envoyé message ñu koy jot ñu bàyyi leen ngeen tàggal ñun salal salam di saaj plateau bi auzu billaahi mina seytaani rajiim barke Cheikh Saad barke Cheikh Saad barke Cheikh Saad laa ilaaha illallah moo yónni Muhammadu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam. yow Cheikh Mohamed Fadel. xeetu. Mm-hmm. yow Cheikh Mohamed Fadel. xeetu. sukk naa ci Cheikh Mohamed Fadel. xeetu. jébbalu naa ci Cheikh Mohamed Fadel. xeetu. dara jox naa la sama xol bi dellu jox la sama ruu gi bu keroog la ma xeramee laa ma ko maamu la mi mu jee Muhammad Maaroof yawmal qiyaam dana ñëw ah. keroog ba ndey ni doom juruma la keroog ba baay ni doom juruma la keroog maam Cheikh Muhammad Lamin doomu Cheikh Jéey ca taxawaay bu yàgg ba jàkkaarloog yàlla sunu borom bi nan ko yow yàlla sunu borom bi fa yaa rabbana fi ardihi wa samaay amitna ala taswiqina bi sifaay fa ina wasul aswaaqi yaxya bidaay yasuuxu alayna aysa duna lixaay isa diina lam yabna fala kaanati dunya fa yaa rabbana sallu ala xayru nabi wal jami wal muslimin amin ya rabbal alamin maam Sëriñ Muhammad Lamin mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam leeru Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom la yàlla jël ci lamp yi mhm. lampa ngi gardu mu ngi leer mhm. mu bëgg a leer ba mel ni weer mhm. far jant feeñ ba fenk weer jant boobu moo di Cheikh na Cheikh Saadu la bi maamu Sëriñ Muhammad Lamin borom faadaliya Chérif Lamin dundal soxna Déthié mooy sa yaay dundal alaaji Cheikh Dieye mooy sa baay dundal Cheikh Mohamed Maaruf mooy sa maam dundal Cheikh Taqila mooy sa maam dundal soxna Lalla mooy sa maam dundal soxna Mariama mooy sa maam dundal mm. Cheikh Sadula bi mooy sa maam mm. Chérif Mouhamad Lamine doomu Cheikh Dieye ji Aydara Chérif mm. bàyyi Cheikh Mohamed Maaruf mu ndaw bàyyi Cheikh Dieye mu ndaw dundal Aydara loo fi gën a yàgg day gën a jeex maam Sidil Xayri nee na mm-hmm. asaadal إلهي وساد الورى وساد السود لأخل الله أماما أماما وساد الآية

doon Cheikh Mohamed Fadel Chérif Lamine bi ñuy wax ci moom dañ ci yàgg lool ay dara ndeysaan noonu la jërëjëf kooku dafa baax dox ndànk wax ndànk dal ndànk Cheikh Jéye baayam soxna Déthié yaayam Cheikh Mohamed Mar Fay maamam Cheikh Takula mooy maamam soxna Mariama ay maamam Aïdara bu ñuy wax ci moom dañuy yàgg sëtu seen Cheikh Saad bu boobu macha allah moom sunu sang la jërëjëf soxna Ndeye Fatou Dieye naa ni ngeen Alassane si moom artiste la waaye dafa bëgg may wax rek ñëpp a ñuy seetaan Kalz mon frère merci boom borom RFM maa ngi nuyu waa King bu baax baax merci Boubacar Kane de i rajo nuyu mu ngi seetaan émission bi leen di jaajëfal bu baax a baax euh, Ndiasse jërëjëf encore une fois euh, di ko souhaiter joyeux anniversaire Alaaji Katim Cissé bokk ci fan club Walfadjri bi eh, tey mooy anniversaire am ñu koy ñaanal laa totale le meilleur mooy tout le bonheur du monde ñu ngi la koy ñaanal bu baax a baax alaaji Katim eh, Jabel Gueye moom it soppe yonent bi la sallallahu mu ngi fii ci marché eh, buy nekk fii ci diwaanu Parcelles Assainies moom tam ñu ngi koy béggee mu marché Dior ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax alors ba tey dañuy wéyale di leen bégal ci yonent bi ndax waxtu yi daanaka mu ngi xëcc jëm ci jeex waaye dañuy bàyyi waat suñu jigéen moom it ñëw bëggalaañ Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax xam naa ni Cheikh Cheikh Oumar ak ñeneen ñi lépp lañ bëgg a def moom la karo la ñuy joxante xandi fële ca Bambey incha allah euh, dal di fa tag yonent bi tantal ko ndaxte guddi gi li may faral di wax lu ci waay def defaloo ko Chérif Lamine sa bopp nga ko defal mm-hmm. ndax moom euh, li may wax rek daf man li tax ma gën ko naw jikko la mm-hmm. nee naa ko euh, sang bi li tax ma téye la mooy damay gis sa maam ci yow mm-hmm. moo tax ma téye ko man man damay gis yonent bi ci moom moo tax ma téyel ko sama bopp di mu ne ma Mouhamed doo suma doo suma taalibi sama wëllëre nga Cheikh euh, euh, Cheikh Cheikh Cheikh Ba mi mën na seede loolu doon teew mu mu boole ma ci boppam boole ma ci boppam Chérif fonk ma bëgg ma am fu ma teg ma xamal ko suma bopp nag waaye it ma jël cër boobu yëpp delloowaat ko ko moom Chérif ay Aïdara ndax nit ku baax la nit ku baax la léegi soxna maa ñu dem wala ñu jox am amet mu wala ñu bàyyi la nga enchaîné waaw Ameth dama bëgg Ameth day daw tabale moom wax ji lay bañ Ameth. <laughs> la ilaha illallah ya rabbana bi cheikhina cheikhu jërëjëf euh, soxna Mama jërëjëf waa mouvement Vadelia macha allah ñëpp bég nañu man moom sama téléphone bi explosé wu rek muy jàmm <laughs> parce que dama ma ci jot ci message moom mënu ko liir seen seen ndax bég nit ñi seen mbégte seen cofeel euh, ci yéen sallallahu alayhi wasallam ñëpp kontaan nañu euh, soxna Mama jërëjëf question ma ko waxoon sànq mu ngi ñëwaat jot na aussi ngeen génnee clip génnee album ngir soppe yi ngir ngir ñi bëgg parce que am na loo xam yàllaa koy def ci nit. Euh, li may faral di wax am na loo xam ne bëgg yonent bi jagle la li nga wax sànq Cheikh Oumar waaye nag euh, ku mel ni Maman Fall tey ñu gis ko mu war a mun a génne loo xam ne soppe yi danañ ci yow it ëmma question bi naa la ko jox nit ñi dañ lay gis rek euh, mais ba léegi ñu lan moo tax mënaguñ gis leneen lu bees ci ëmma loo xam jox soppe yi jox ko micro bi. waaw dëgg la mm-hmm. dëgg la li nga wax lu am la. Mm-hmm. waaye yàlla def na si biir koor gi ñu génn. Mm-hmm. am na benn album bu ma génnee. ok amaana nag maa maa doxul pour jaarale ko fu ma ko war a jaarale. Ah. waaye euh, album bi mu ngi dox. gaa ngi koy dégg xëj na maa ko indiwul ci média bi. waa léegi la moo tax la moo tax te te te te. déedéet <laughs> ëmb déedéet loolu du ma ko d'accord moom ah. léegi dañuy def benn affaire. man ci koor gi sama émission day continuer hmm. damay dalal këru diine yi di waxtaan ak ñoom. léegi dañ koy wax fii ñëpp ak ñuy seetaan ci biir koor gi incha allah bu ñu tàmbalee rek bu la neexee bu ñu tàmbalee koor gi samedi bi ci njëkk ñu dalal la nga présenté ñu album bi andi groupe bi ñuy joué morceau pour morceau di ko waxtaanee mën na nekk mën na ne amul benn moom moo ko amul ah, ñu allah bu ñu bu ñu bu ñu umee koor ci kattanu yàlla yal nañ ko fekkee de tal ko dinañ la fi dalal nga présenté ñu album bi hmm. ñu koy jël benn par benn dëgg la nga ci ñëw nu koy waxtaanee wallaay gën li nga wax ni dëgg la xam nga nit ku nekk. nit ku nekk xëñ na euh, waroon naa def loolu ndax bërki démb rek. Mhm. bi ñu demee kër Mañang Omar si gannaaw Louga. Mhm. wallahi azim sirif taalib bi ya. Mhm. dooma sax xasana maalum. wax na ma loolu na ma wax si Amady da doo defar clip. nga yaa ngi fi lu ko defee ngi fi. waaye xaw ma lan la. ah déet da nga a mu daw ko moom itam boobu la ah. nga ne mu ngi. non maman moom incha rabbi ah? loolu incha allah man ak Ameth nañ ci taxaw. waaw incha allah vraiment bëgg naa daal moom dina dina dina am lu ñu ko defal. du yàgg incha allah rabbi waaw kon bu ngeen di ñu ñëwaat fii dina fekk mu pare. incha allah bi bu ñu yàlla may tal ak fekkee. non man maa ngi ci man kay. waaw non di nga am non moom moom dafa am lu muy mottali dafa am première pas boo xamante ne ñun ñoo koy def. waaw après <laughs> li de def incha allahu rabbi. dinaa ci taxaw waaye waaye waaye Mohamed ñu ngi lay gërëm di la ñaanal. dana wax fu dëgg yàlla man sama sàggante la. Mm-hmm. te duma taxaw di ko di ko nëbb. Mm-hmm. xëy na nag nit ku nekk ni la yàlla bindee. Uh-huh. nit ku ne ak ñi la yàlla bind. dëgg la mais bu fekkoon ne topp naa leen déglu naa leen chaque jour média bi ñu ngi may dégg ñu may gis. Mhm. ndax daaw bi ñu fiy jógee. Mhm. wax nga ma ne bëri na fii ay soppe yoo xam wax na na naa naa leen jox sama benn clé ñu koy teg. wallaahi du caaxaan wallaahi lépp nag sama saak. mais incha allah buñ fa jigee ah. bu soobee yàlla loolu leer na léegi yéen i mbokki xarit téléspectateur ah. ñu seetaat yéen allah bu ñu dëgmalee koor gi ci kàttanu suñu borom yàlla nañ ci yegg ak jàmm dinañ leen fi dalal mu présenté ñu album balaa boobu tamit bëgg naa Mame Fall yëfam génn benn présenté ñu ko. bu soobee yàlla allah incha allah waaw moom du du yàgg bu soobee yàlla. waay ayca euh, joxal ma sama xel naa day daw waaye faw ma jox <laughs> Ahmed Tabala moom tamit euh, li may wax rek munoo wax ñi tagg Yonent bi sallallahu alayhi te boole woo ñi nga xam dañuy tëgg Tabala. Oh. Euh, kii Cheikh Ba Ahmed maa ngi lay nuyu. waaw Mouhamed ñu ngi lay fay. xam naa nit ku bari kersa ngay te wax ci mbooloo yomb la waaye mm. nag euh, mënuñu wax ku tagg yonent sallallahu alayhi wasallam te boolewuñu ci tagg tëggkatu tabala yi nga tënkal ma ci loolu rek. waaw Mouhamed ñu ngi lay nuyu. Mm-hmm. di nuyu ñun bokk ak bi. Mm-hmm. di nuyu ñi nga xamante ni. Mm-hmm. ñoom Rama Yara ak Cheikh na Cheikh Saad bu Booral muy samay doom ak samay jarbaat. dëgg la ndax. bis bu ne kontaan naa sax waaye bisu tey bi kaa gën a kontaan. ndax mhm. kii nekk nii sama wet. Mhm. bu may ñëw di tëgg. Mhm. boobu mu ngi nekkoon tout tànk. kon tey ji bu dee ba. may tëgg muy divisé. kon damay sant yàlla. dëgg la parce que dama ko yàgg wax ne ren. tagg yonent bi nga mën a bokk ak sa ndey ak sa baay sa doo si am complexe. waaw. ndax Mouhamed man. damay sant bu baax. dëgg mujjuma tëgg tabara Sénégal jëkke wu ma ko fi. Mhm. waaye kuy tëgg tabara ku ne xam nga ma. sa ci li may xam lépp mooy. Mhm. ñu bokkandoo bëgg Cheikh na Cheikh Sadbou. Mhm. ndax man defe naa ne. tabara yi maa ko jëkk génn senegal wala bokk bokk naa si ñi ko jëkk génne. Sénégal. tëgg ko ci àdduna bi tëgg ko fu ne. waaye li ma ci gën a neex mooy li ma koy tëgg mm-hmm. si mbedd mi di ko bokkook ak samay doom ak samay rakk mm-hmm. teraanga bu ma si mën a am rek boobu ma ko gënal waaw ndax aw ma ko dul mm-hmm. waa kër Seex na Seex Saal ak taraxa ah, si kontaan baax waaw di gërëm ñoom Seex na ñoom xam ne tey jii bari na gàmm yu ne si Ndakaaru ñoom ñi buñ ko tëggul Mhm. keneen dootu ko tëgg. dëgg la kon ko sant yàlla bu baax a baax. alhamdulilah surprise xam naa le 14 la incha allah. Mhm. que Mouhamed le mhm. damaa bëgg képp kuy tàkkat yonent bi. war benn cofeel si yonent bi. ñu fekk Bambey. incha ndax. dafa am lu xam ne. moom la daan tëggee tabara. ak léegi ni ñuy tëggee. c'est incha ñun mhm. ak mouvement bi xam ne moo nekk mouvement Fadria ak mhm. waa kër Oumar Mbaye mhm. ne wane beneen facette bu tëgg tabara bu xamante nii ku nekk woon soixante treize ba quatre vingt dix gëm naa ne di nga ne riñ amu fi kon nag quatorze ñu ngi invité ñëpp incha allah di wax waa Bamba yi ñoom ñëpp nañu toog xaar sax xam ne ñoom ñëppay kontaan ci incha allah incha allah jërëjëf alors mère Khary Faye sama yaay ndeysaan mu ngi woote rek moment maa ngi jégalu mais boo nekkee plateau doo mun a jël téléphone <laughs> ñu ngi lay ziar encore une fa maa ngi gis ñëpp seen seen i appel mais mais mais munuñ ko jël parce que dañu nekk plateau nekk direct di wax ak addina ñu ngi leen di jégalu yéen ñëpp vraiment message nag bari na maa ngi koy lire mais yaay booy maa ngi lay ziar mère Khary Faye sama yaay sama xarit maa ngi lay nuyu di la ñaanal waa Bambey maa ngi leen di ziar baax di nuyu euh, euh, euh, sunu sunu sunu papa la mu di alaaji Kader Sarr mhm. euh, góor gi Kader Sarr euh, ndeysaan benn kaddu daf may frappé ci moom mhm. dafay wax Chérif Lamine ne ko sàgg bi danga fekk sama doole jeex mhm. waaye boo fekkuloon sama doole jeex dafay tarbiyu Chérif di sonn ci moom bëgg Seydina Mouhamed ba jeex takk alaaji Kader Sarr yàlla na yàlla guddal fan yi wëral cër yi waa Bambey Sindiane Seereer jërë ngeen jëf ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu Abdou Ndom gis nañ seen taxawaay ci shérif ñu ngi leen di ziar yéen ñëpp ñëpp ñëpp bàyyiwuñ kenn bu buñ limee jum ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi nuyu waa Bambey di kontaan ci yéen waa Louga di ziar shérif ak ay waajuram ñoom ñëpp ñu ngi kontaan ci ñoom bu baax a baax alors euh, di di di wax rek que ni duñ ne bulet ndax du euh, yaakaar naa ni euh, gàmmu gi yàgg nañ ko taxawee waaye bii bii da cee raw bii da cee raw di di di di ñaanal shérif Dieng yal na yàlla guddal fanam amiin jur Chérif Lamine dara sunu kilifa la mu nga lugaloo di ko nuy ñuy soxnaam ak njabootam gépp ngi leen di ziar bu baax euh, di di di di nuyu aussi bu baax a baax Cheikh Ayane mu di xalif général yi de xadr yàlla guddal fanam defal ko jàmm ak sutura bu baax a baax waaye di nuyu waa Sindiane 1 Sindiane 2 di nuyu waa Sangalet waa Mortin ñu ngi foofu ci diwaanu Bambey Sindiane Sereer euh, ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar di wax ne su bés bi ñun dañ ñu ko jagleel dañ ci bokk ndax yàgg nañ ñu ko jagleel bu ñu xëyee jàng alxuraan la ñuy def def mise en place 11h euh, bu ñu noppaloo julli xewlu ngoon gi nag ñu fa def 17h cérémonie officielle 22h nag ñu tàmbali gàmm gi jëm fajar tagg yonent bi sallallahu alayhi euh, di ñaan yàlla ñu ci yàlla yóbbu te tal ñu fekkee ko te tal ko di ziaraat Serif Lamine ma ne ko yàlla moo boole ak yow ma sant ci nag bu baax a baax. nit dañuy faral di wax ne da nga koy xam ñu ne yokk nga sénégalais boo yokkoo ñu ne alal la déedéet mm-hmm. nit day yokk ci baatin sax du ko xam mm-hmm. waaye dama ko koy wax chaque jour ma ne ko ay dara ba nu yàlla boole ba tey mm-hmm. man yokk naa te xamal naa ko sama bopp waaw du lu ñuy leeral nag waaye man yokk naa te xamal naa ko sama bopp di ko wax jërëjëf yal na yàlla fay la yéen yàlla fay leen waxtu yu def nañu sox ëma message yi moom wax dëgg yàlla waaw macha allah jërëjëf ay dara yal na yàlla fay alors euh, tàggatoo bi lan lay doon ma njëkk a jox seen cherche sat bu baax moom ñu jiital xale yi wax dëgg yàlla moom it euh, daanaka temps bi xoj na mu bari na li ñu may li si des bareetul lan ngay tënki waaw dama bëggoon baa ñoo tënk rek mhm. nga bàyyi Cheikh Emma moom bàyyi may dox addee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn dina ko def moom laay tëje ah mu waaw moom laay tëjee ndax juróom minute moo ma dese journal bi dafay ñëw kon ñuy santat yàlla bu baax nag uh-huh. di julli ci ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam uh-huh. di ñaanal Chérif Lamine eh, yal na yàlla guddal fa mu te wéral cëram amiin yaa rabbi eh, di waxtaan mi nga xam ne ne moom la ñu demal di ko jëm uh-huh. ñu xam ne ne euh, Chérif Lamine moom ko mhm. rasulullah alayhi salatu mhm. njëkk a wax ne inna allaha wa malaikatu mhm, kon yàlla njëkk a gàmm ci yonent bi sallallahu alayhi kon bu fekkee tey Chérif Lamine jël na ko ne day gàmm pour yonent bi sallallahu maamam kon defe naa bàyyiwul kenn ñu ngi woo képp koy wax ashhadu an la ilaha illa muhammad nga cofe am nga cofe ci Seydina Muhammad alayhi ñu ngi ñaan ci barke yonent bi ak barke la ilaha illa allah nga teg sa tànk gis loo xam ne ne mu ne loo mosul gis de waaye di gis lu bees may dolliwaat di eh, delluwaat tuuti rek mm. di ñaan mm. képp koo xam ne yaa ngi fay ñëw mm. naam rafet na waaye na nga sol lu yiw incha allah dañu sol lu yiw parce que ñun dañu yor lu kenn yorut wax naa ko sànq mm-hmm. parce que ñun Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ñëw kon tant bu ñu tant la yonte bi yonte dafay teew mm-hmm. kon nañu góorgóorlu ci colo ñuy solu mm-hmm. xool suñu comportement parce que ñun lañu